day tukk ci réewum jàmbur te du jaar ci fi mu war a jaar mu ne rawatina sax bu xamee ni mën naa faatu ci yoon wi maanaam xaru lal mu xaamala moom lu leen di ci te borom bi moo ñu waxoon ne wala tulqu bi aydikum ila tahluka nit sëñ dugg ci loo xam ne bakkanam mën na caa def ci di ko tey dañ koy léegi nag damay musu dara waaye naa dem rek lu am baax na foo xam ne bu fukk demee juróom-ñaar dañuy faatu yow boo xaruwut am nga bàkkaaru ku xaru ndax da nga doon xaru da ngaa rëcc rek moo tax yooyu moom jullit wul ko def tukki daa war tukki ci lu leer lu ci desit lu fi jar xaru ngir wuti àll néew tukki du ko sos man ngi dañaa wax dajale alal la waaye du sos wërsëg gis nga doomu aadama li mu nar a am ci na du faatu amul bi ci defee tukki ku la wax ne boo tukki am ñaata nit ñoo tukki bu siwaat ba ñuy dem la lañ tanewante bi ñuy bis yow muy xaru ndax jottoo ne su ñoo nga nar a bokk bi ci defee ndax alal jar nag xaru ngir am ko ndax boo ko amee da ko jariñoo ñaata nit ngeen gis nit li jëm ci ba am alal ju jeex xëy faatuwoon ci ko fi kon nit na jaar fi mu war a jaar lu mu am xam ne lii yàlla dogal ci moom muy dund tedd nga bu faatoo mën a am yaakaar waaye di jaay sa bakkan ngeen alal at ji joo xam ne wóor lu ba xam da ko am déet wóor lu ba xam boo ko amee da ko jëriñoom déet loolu moom dara jël te yooyu ñuy nag njaboot gi ñu ci la bokk am na ci yoo xam ne nag kilifa yi am nañ ci ab cër ndax gone bu xaru ba dem di indi xaalis tax nga dëkk ci yeneen yi ñu demut nga naa leen yéen a ñàkk jom seen morom yi nangam nangam bu dégg bëccëg nga doon su ñooñu bu ñu demee xaru yi daanaka yaa leen xarul te léeg-léeg am ci ñoo xam ne nag dañ leen di dañ leen di sotti ay wax bu mëntuñoo toog ndax seen morom dem na ma ngay indi nangam yéen nga ne fi taxawaalu nam dafa dem mën nga ko def yooyu lu mat a moytu la doomu kenn ku nekk wërsëgam bu juree njaboot jàppal ne kenn ku nekk dafal ci moom la ci war waaye bul mat def gi ci lam may defal ndax wërsëg tolloo ma bàyyi xel la gone yi bari ñu ngi dem di dugg ay lëxoor fekk dañ leen a teg luñ attanut mu ne naa wuti bu ma amee baax na bu ma wut dee ci àll bi moo tane li may dégg mun mënatuma ko de loolu lu du ma ta bàyyi xel la mbokk yi